émission bi ñu tuddee tazkir wa tanbihun fi lislaam mooy fàttalente ak yeetente ci diine lislaam muy am alxames bu nekk ci ngoon diggante ak àjjuma ci seen seen bi ñuy wax Ndaayeen wission bu dee ci ñuy topp ci YouTube wala ñuy topp ci Facebook wala nga def 3w ndaayaan service point com ñi ngi wax ñëpp di balawaat ak ñëpp di nuyu mboolem kilifa diine yëpp di leen ñaanal di sàkku seeni ñaan di ñaanal yàlla di ñaan yàlla yokk jàmm ci réew mi yërëm way dawlu yi saafara way tawat yi yàggal ñu fi lool ànd ak wér te barkeel suñu dund euh, ni ñu ko commencé woon rek mooy ñu fàttalente ci ni lan mooy diine l'islam d'abord <coughs> ngir dañu ne danañu mën a dimbali bu baax ñu xam ni kat diine ju nekk lépp lu ñu digal ñu def ko mooy li gën waaye lu ñu tere ñu bàyyi ko mooy li gën ndax mooy tax suñu àdduna mën a jàkk waaye mooy tax suñu àdduna nekkiin wi mën a rafet te mooy lu nga xam ni même nit doomu rek doomaadama bu fekkente ni jikko woon a ca loola maanaam dana ci bénéfice wu ci àdduna ngir dana mën a nekk ku nekk dana mën a jëflante ku nekk kon dikkuwaay bu fekkente ni jullit yi eh, ñu ngi dem ba jamono ju nga xam ni nekki ni ci seen biir dangay gis mu am lu mel ci ay ay ay ay jëflante yoo xam ni maanaam nga koo séntu faneen su ñu nekkul ci diine ndax da nga naan diine amu fa su boobaa du la jaaxal kon suñ ko gisee ci ay jullit jaaxle day am tiitaange day am ngir kon dañoo mel ni fàtte nan lan muy diine lislaam waaye fàtte nan la ñu islaam ak lam ñu jàngaloon ak lam ñu waxoon ba nga xam ni suñ ko defee mooy li gën ci ñun nekkin bi day yéwén day baax day rafet moo tax bii weesu ñu ngi yamoon ci ba ci jikko yi nga xam ni lislaam dañu ko jàngal bëgg nit ki nga xam ni mooy dund lislaam di ni ab julit la ci diine lislaam la nekk mu jikkowoo loola lu ko moy rek lay am moo di ni turub julit naa julit laa julit laa mën na bari waaye booy xool ba ca biir ci jëflante yi ci wax yi ci comportement yi dëgg dëgg julit yi tax ñuy wax day des lu bari bari te loolu lu ñu jural musiba lu nekk rek loola ca la bokk moo tax diine baax ndax nit ki bu ko amee dana sàmm lu bëree bëree bari ci diggam ak boromam ba yu bari du ko def yu bëri du ko wax ndax dana ko jombale boppam ngir lam cay am donte lu koy jëriñ ci àdduna lam cay ñàkk ci ayomal xiyam du ko ko jaral nit ñi nag loolu jamono ji yaakaar naa faaleetu loolu di nga gis ku nga xam ni mu toll ni ñu baal ma xëy na ci kàddu gi bu xëyee bu nee ni diis na ñàkk ngëmam ñàkk ngorom bàyyi mbokkam am intérêt wu àdduna ba ci ñàkk boromam sax moo ko gënal fi mu nekk nii am boromam wala am àllaaxira wala am tuyaaba ju nga xam ni maanaam loolu moo ko koy moo ko koy moo koy andil dina jooju subhaanahu wa taala nga xam ni moom la yàgg dénkaane ci ni na ngeen ci sax na ngeen ci nekk wax ko ak yonent yonent yooyu na ngeen ko wax seeni doom ak seeni sët ngeen jàpp ci bu wér te xam ne mooy diine jigéen ci diine yi ni waxe woon rek bax de asbala wa basmala wa wassa bi ibrahima bi bannihi wa yaqub ya bunaya inna allah istafa lakum diin fala tamutunna illa wa antum muslimun nga xam ni foofu ibrahima yonent yàlla ibrahima la wax suñ borom ñu wax ñi ci alxuraan ni wax na ay doomam ni leen yàlla kat mooy ki nga xam moo leen tànnal diine te yàlla lu mu tànnal nit mooy la gën ci moom kon yéen dikki leen sama njaboot bu ci kenn faatu lu dul da ngeen a jébbal seen bopp yàlla te lislaam loolu ginnaaw baatu jàmm bi muy bi mu symbolisé bi mu symbolisé muy asalaam waaye day duggaat ci taslim mooy jéb womatu jébbal sa bopp yàlla ngir pare jëfe ay ndigalam pare bàyyi ay tereem te loolu mënoo ko def lu dul nag nga sàmm wante ak ndigale diine yi teg ko ci sunna sallallahu alayhi wa ci njàngaleem mu waxaat ni xul euh, innani hadani rabbi ila sirati mustaqim diinan qayiman milati ibrahima fa suñ borom mooy ki nga xam ne moo ma jubal baaxe ma ma jub teg ma ci yoonu jub xocc wi mu nekk diine ju nga xam ne jub xocc la dëngut jàddut kon lañ koy dégg boo ci boo ci boo ci tegoo rek fa ngay mujj ëllëg alhamdulilahi rabbil alamin lay doon waaye bu fekkee tegu nga ci wala nga jàdd baa nga wiire su ko defee fa ngay mujj fii fan rek la lay doon waxaat tamit ni euh, huwa lazi arsala rasulahu bil hudaa wa diinil haqq liyuzhirahu ala diini kulli walaw karihal mushrikuun suñu borom mooy ki tànn diine ji muy diine dëgg waaw mu nekk nga xam ne moo koy fësal di ko feeñal yëkkati ko ci mbooleem diine yépp moom la ci yàlla tànn donte ni sax am na ñu jógoon opposé wu bañ loola taxaw bëgg a ci ni du jàll suñ borom ni leen axakañ diine ji rek mooy li nga xam ni mooy féete kaw boo demee ci beneen aaya lu mu waxal ni mu ni allazina laa yuminu billahi wala bi wala bi yawmil axir wala yuxarrimuna maa xarama allahu wa rasuluhu wala yudinuuna dinal xaq ñi nga xam ni yow na nga na nga xeexe ñi nga xam ni xaatilu lazina laa yuminu billahi wala axir gëmuñu yàlla danga koy weddi gëmuñu ni yowmal xiyaam dana ñëw maanaam ku xas dee pare na waaye duñ araamal la yàlla araamal ako ab yonenteem yemuñu ca duñ diine woo diine ji nga xam ne mooy diine dëgg yow salaa salaam soo demee na nga taxaw guerre ak ñoom xeex ak ñoom ban revenir ñëw ci yoon tegu ci sa siraatal mustaqim nangoo appliquer luwaay yi nga xam ni moom la yàlla tëral ci kaw suuf ndax yàlla moo ñu gën a xam suñu nekkiin moo ñu gën a xam li gën a baax ci ñun kon lu mu tëral ni lii lii la rek ñu aw ca mooy li gën ci ñun suñu ko defut conséquences yi jur ko nekk gis na ko gis na ko incha allah moo tax Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu dafa wax ni yaa saaili an ay diinin yustafa inda al ilahi haaka diinul mustafaa Sëriñ Tuubaa ni yow mi may laaj jën diine lañ war a tànn moom leen war jàpp moom leen war a topp Sëriñ Tuubaa nee na la dénk naa la ju jenn lu dul diine yi Mustafa ja mooy Mustafa sallallahu alayhi wa waaw dénk naa la ko kon jàpp ko mooy diine ju mat diine mooy diine jigéen ci diine yi mu ni ay xiin bi anna diina inda islaamu na laa diina silmalaahi mu ni maa ngi lay wax nga wóolu yow mi ma laaj wala yow taali bi wala yow julit bi wala yow doomu aadama bi nga am kóolute bu baax lu wér kéng leer naa ñu ki ni la diina janga xam ne moo nekk fa suñu borom tabaraka wa mooy diine lislaam waaye du diine ña nga xam ni ay fokat lan moo tax mu ni is kullu man daana bilahu turida walil jinaani abadan lan yarida mu ni képp koo xam ni sëñ Tuubaa nee na radiyallahu anhu diine woo nga beneen diine budul diine sallallahu alayhi wa bii mu indi di islaam nee na danañ ko dàq ci yërmande yàlla te bu ëllëgee du bokk ci ñi nga xam ne dañuy tabbi aljanna kon na ngay dégg waat dañuy waxan sànq boo remonté ci kaw ci aayaa yi mooy ku ci topp rek mooy yoonu jub bi nga xam ni moom ngay def ndigalam bàyyi tereem ba ci àdduna sa àdduna mën a jag ak sa nekkin ci doomu aadama yi sa lépp mën a jag sa environnement sax mën nag da koy jagalaale waaye mooy li nga xam ne nag moom ngay topp nag doo ko wàcc ba yàlla tàbbale ci yërmandeem mooy duggale àjjana moo tax alxuraan waxam ni wa zalika diinul qayima mooy diine ju jub mooy diine ji nga xam ni moom rek moo mat a jikko woo moo mat a diine woo kon war na ci kenn ku ci nekk ci ñun ñu fàttali ko bu baax lii ñu wax ni kon diine lislaam du caaxaan du fo Euh, su ko defee loolu kenn ku ci nekk taxaw ci kemtalay kàttanam ni ñu ko waxe woon sànq ci njëlbeenu wax ja ci ni bu yam ci yow rek waaye lépp loo ci man ci yaatal ko ci ñi la wër nga def ko bu baax ndax loolu mooy ndigal la mbokk yi ñu xool bu baax jamono ji ñuy dund sun jamono yii ñu xool diine maanaam valeur yi mu amoon euh, doon ko valoriser doomu adama yi ñu leen ci naw ca loola nim mu commencé wàññeeku bu baax a baax a baax di ruus di wadd benn par benn waaw boo jëlee ci ñàkk kersa gi ci ndaw ñi ñàkk kersa ci jigéen ñi seeni col seeni waxin seeni defin seen jëflante seen comportement si lépp ci biir kër yeeg ci biti fépp foo dem rek gis ko fa muy loo xam ne ngi ciy teg bët ñu dem ba yamatul ci biir kër yi ak mbedd yi mais ngi dem ba di ko ci média yi nga gis moom télévision yi da ciy génn day feeñ ci rajo yi day feeñ ci mboolem lépp xeeti jumtukaay yoo xam ne ñu ngi koy utiliser ci wàllu technologie loolu ñu la wax day feeñ ci ñoom ndax da nga gis ku nga xam ne dana génn sol colin bu nga xam ni euh, wax dëgg yàlla ñi koy gis amaana sax nekk ay kilifa waaw te loolu waru woon a nekk loo xam ne day feeñ na muy waxee na muy doxe yëpp day nekk lu nga xam ni da cay joué hmm. su ko defee loolu nag li ko waral bokk na ci li ñuy wax euh, mondialisation ak modernisation ak ubbiku gii nga xam ni ubbi ko noonu ubbi ko na euh, euh, euh, def nañ ko ak ubbi ko ci wàllu frontière ci sun réew diggante mag yeneen réew yi ko wër wala réew yi ko gën a sori muy réew européens yi occidentaux yi dégg nga ak yombal gi nga xam ne yombal nañ leen ko ñoom occidentaux yi heure bu ñu bëggee dugg suñu réew dugg fi amul benn charte bu diis boo xam dinañ ko waat lu ñu fi bëgg jël jël ko fi lu ñu fi bëgg a def def ko fi waaye lu ñu bëgg a ci ci ci xëy na jaare ko ci influence ci wàllu maanaam population bi wala wàllu ndaw ñi ci seen gëm am na moyen bu ñu ko defee te loolu léeg-léeg suñu état africain yi dinañ ci dimbale bu baax a baax waaye bokk na ci tamit àndandoo yi nga xam ni euh, dem beeg dikk bi ñi nekk fii jóge fii dem ci réew yi occidentaux yi dem ci réew européens yi suñ demee léeg ñu juddoo fa yaroo fa màgge fa du ñu xam seen culture duñu xam seen diine duñu xam lu bëri bu ko defee bu ñu dellusiwaatee fii réalité yi nga xam ne mooy war a am ci ci ci réew mi mu nekkoon suñ ay réalité nekk suñ culture nekk lu ñu diine jàngal nekk suñ aada su boobaa ñoom dañ ciy perdre bu baax a baax a baax dañuy ñëw nag nekk ñu nga xam ne dañuy bëgg implante li nga xam ni euh, moom lañ jëlee fële ngir yaakaar ni li ñuy wax civilisation loolu mooy li nga xam ne mooy lañ jëlee ci réew yi tubaab yi moom lañ jëlee ci réew yi euh, euh, kii occidentaux yi bëgg ko defee ñu nekk fii tamit xaw a am complexe bu rëy ci ñàkk gëm seen bopp ba bëgg leen topp ca loola su ko defee coppi guguy loolu moo waral mu gaaw yenn gaawaay yi moo tax ñu war a xam bu baax ni euh, du liggéey bu yomb suñu bëggee maanaam dellu bu baax ci démb ni mag ñi nekkee woon démb ba nga xam li ñu fiy dégg te yépp ci euh, jamono daawuñu ko dégg bu njëkk wala boo ko déggee bala nga ko dégg dana yàgg hmm? il faut ñu taxaw temm ci yenn responsabilité yi nga xam ne yenn parents yi dañ koo daw ci njaboot gi yar bi demeetul noonu ñenn ñi bëgg nooflaay ñenn ñi topp dund àdduna ñu xam ne àdduna moom nooflaay amu fi waaw euh, su ko defee ñu jël li Sëriñ Tuubaa waxoon ci occidentaux yooyu ñu teg bët ak nasaraan yooyu yaakaar ni lu ñu indil mooy lu gën fi ñun te mooy li baax ba léegi ñu indil ñu lu nga xam ni dañ koy jël di ko appliquer ci suñu biir bàyyi fi sax li diine wax waaw parce que léeg-léeg ñu teg ñu ni islam lii la ci wax en tant que jullit war coo attewu li yàlla wax te alxuraan waxam ne ni képp koo xam ne doo attewoo la yàlla euh, euh, la yàlla lu waaw ba yàlla tëral am na ñetti aaya nee na ulaykumul faasixuun nee mu ulaykumul zalimun nee na ulaykumul kaafiruun waaw am na bu mu nii utiliser moo weddi yàlla bu moo bu nga xam ne ko utiliser ñooñu ay tooñkat lan ak bu nga xam ne ko utiliser ci ni ñi kat ay yàqkat lañ waaye léegi suñ demee ba loolu nag Sëriñ Tuubaa waylu li man maala ila nazara maskanuhum ila jahimi saara nee na alkane ñenn ki nga xam ni dundam gi yëpp da ko topp rek jëme ko ci nasaraan yi topp seen ndigal dégg nga yaakaar ne ñoom ñooy buuri àddina yi ndax nee na baax baxdu fal majus wa nasara saaru li iblisal xuwa u saara nee na majus yi ak nasaraan yi dañoo mujj nekk ci mbewtek iblis moo leen gëlëmloo moo leen di gide ñu jaar fa ni jaar Euh, dina leeral tuuti ñi fi mu toll boo nee nasaraan ñu foog nag tubaab yi moo tax ñi waaye mu toll ni euh, baatum nasaara nasaara boobu buñ ko firee ci dañuy bañ tooñ nag dëgg yàlla moo tax duñ ko mën a def publiquement ci nii waaye ñan ci wax dëgg-dëgg du ñu nekk sax bitim réew waaye ñu ngi ci réew mi ànd ak ñun ak ñun waaw nga xam ne ñoom lu ci bëree bëri dama yàlla baa lu yàqu ginnaaw yàlla ñii ko yàq ci leen bokk te dañ ñoo jige nee na ñooñu mbewteeg gën topp moo tax ñu mujj màndi ci ngëlamteeg iblis te kenn ku ne xam iblis suñu borom dafa wax ni bu leen ko topp ndax seen noonu la wala tatabiu xutwa seytaan innahu lakum adun mubin mu ni bu leen yaakaar ni ñoom la leen yàlla may bu leen fa yaakaar ne leen yàlla may ci euh, nu ñu koy waxee ci maanaam moo xam xel min am ak li ñuy defar yëpp nga foog ni loolu taraanga la waaye ab jay la suñu borom da leen di jay te alxam dafa xam ni sa nastadrijuhum min aysu laa yaxamun nee na kon lu mu yor lu ne ab jay la boo xam ne sunu borom la jóge kon xam naa ni mbokk yi ñu ngi ni teewlu dañuy wàcce foofu kàddu gi rek joxaaleen dig daje incha allah baneen alxames ci waxtu wi ci seen émission incha allah tazkir ak wa tanbih fil islam ngeen ci ànd àndan ak seen mbokk ko sofal ci Ndayane Vision ñi ñuy topp ci youtube wala par facebook Ndayane Vision wala nga def 3w euh, ndayen service point com ñun jox dig daje ay bii di ñëw ci 19 heures ci waxtu yi incha allah wasalaamun minalahi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu